koy tàmm di doxalee fii mooy que dañu teg en place lu ñuy wax ni benn algorithme pour nu permettre de d'avoir une information si jamais on a un cas qui va venir donc une fois que ñu def annonce bi lu ñuy def mooy que rapidement on équipe bi day mettre en place sol tenue yi donc il faut kenn di ko assister pour xool ndax dëgg-dëgg lii muy def sol bi baax na nañ njëkk a génne tenue bi tenue bi mooy EPI équipement de protection individuelle donc moom moom lay njëkk a sol actuellement tenue bi boo ko gisee te depuis pantalon yi ba ci loxo yi dafay mat sëkk pour mun a protéger sa si cër yëpp donc loolu moo waral ñu koy suivre chaque fois buy def mu sol lépp ba nga xam ne dinañ gis lu ñu gis ne nii lu mu war lu mu dinañ gis nii ñuy sol nii ànd na am na masque boo xam ne li ñuy wax masque chirurgical masque chirurgical boobu moom lañ jox malaat bi ñi nga xam ne mooy të sëqat pour que moom bu toogee mu mën a boo xam ne dina mën a atteindre nit ki mais nit ki nga xam ne mooy dem di liggéey ci malaat bi dañ koy jox trois façons masque soit masque bu ñuy wax N 95 wala masque bu ñuy wax FFP2 wala masque bu ñuy wax FFP3 donc masque yoo xam ne dañ ko jàngat ba nga xam ne ni pour que nit bu sëqatee sa kanam du mun a atteindre donc lépp dañ koy jàppale aussi pour mu xool nan la koy solee nan la bu ajusté bu fekkee ni am na nu muy demee bu nekk suuf voilà donc après ça même mun mun na ko tester dafay ëff pour xool ndax it se sent bien dans à l'intérieur bon bu ñu paree ci loolu aussi ñu takkal ko lunettes yi lunettes de protection lunettes yi day tax ni si fekkee ni malaat bi dafay sëqat wala def ne mu ne atteindre bët yi donc lunette yi dafay protéger un peu les yeux moom la ñuy wax lunette de protection loolu bu ci paree am na pays yoo xam ni dafa ànd ak capuchon mais malgré bu ñu defalee capuchon bi dañuy def de telle sorte que dañ koy tegal cagoule pour mieux assurer donc on fait tout pour essayer de voir ndax amul mais toujours di ko poser question ndax il est à l'aise dans cette tenue il y pas de problème su fekkee amul benn problème cagoule bi moo ci topp cagoule bi aussi dafay gën a jëri dafay gën a protéger le visage et probablement lii nga xam ne day tax mu kii euh, mun na indi ay euh, erreur voyez bon maintenant la dernière fois comme que dafa njëkkoon sol benn gant dañuy jëlaat beneen paire de boo xam ne ni moo koy protéger pour les soins yu muy def yu muy def pour ne pas que à l'intérieur mu traverser gants yi boo la xoolaatee gants yi deuxième paire de gants bi dafay dem ba tirer ci kawam lay nekk quoi maintenant bu ci paree moom ci boppam day xool ndax indi est à l'aise dans la tenue tout ça yëkkati loxoom et cetera pour voir est-ce qu'il est à l'aise c'est-à-dire à chaque fois qu'un patient arrive il y a quelqu'un qui va le l'accueillir pour l'introduire dans sa chambre donc c'est la tenue là qu'on porte pour aller là-bas pour aller à l'intérieur du, du mbokk téléspectateurs yi kon sant nañ leen gërëm leen taxaw nañu ak ki nga xamante ni moo di professeur Moussa Seydi di sama toma alors tey jii nii moom moom moo jiite service bi nga xamante ni moo di service maladie infectieuse dañ koy wax jamono ji lu ci bari mais bu ñu fàttalikuwaatee ay at ci ginnaaw 2014 2015 professeur ak jamono yi nga xamante ni ñu wax lu jëm ci wàllu Ebola tey ñi ngi wax ci lu jëm ci wàllu Covid 19 di coronavirus. alors actualité bi yëpp concentré wu na fii jot na tey ñu communiqué ak sénégalais yi waaye waxtaan ak ñoom. ndax lu jëm ci suñu wàllu personnel de santé bi wax nañu ginnaaw qualification bi nga xamante ni am na ci ñoom naka la ñuy def ci seen engagement pour la nation mais naka lañuy def pour li nga xamante ni moo di intérêt général ñu fexe ba lépp loo xamante ni askan wi la ñu dalal seen xel waaye wan leen ni leen tam am na loo xamante ni tey ñoom amee nañ ko te mënee nañ ko te ñoom ñi ngi dox ci lool loolu moom moo waral ginnaaw plateau bi nga xamante ni defal nañ leen ko ñu dellu si ngir nag fas yéene waxtaan ak yéen pour xamale leen bu baax ki nga xamante ni tey ñoo di suñuy professeur ñoo di suñuy médecin ñoo di acteur de santé yi nga xamante ni ñoom lañu ñu nekkal professeur laaj bu njëkk bi nga xamante ni moom lay samp moo di Ibrahima Diop ma moom ngeen dippee li nga xamante ni moom moo di service bi un petit rappel pour ñu xam ko. waaw euh, dama leen di sant d'abord yéen waa 2STV parce que li occasion la pour ñu mën a gën a sensibiliser askan bi pour wax ak moom waaw Ibrahima Diop Mar mooy premier infectiologue sénégalais bu diriger service bi avant moom ay tubaab ñoo ko doon diriger uh-huh. donc moom moo njëkk a diriger service des maladies infectieuses tropicales uh-huh. nekkoon na aussi doyen de la faculté euh, de médecine de pharmacie et d'odontologie uh-huh. borom xam-xam boo xam ne ràññee nañu ko fépp si àdduna am na yu bëree bëri yu mu def yoo xam ne jaar-jaaram. yoo xam ne xëy na di si dugg dina gudd loo mais ngeen xam ne référence la. Mhm. si wàllu infectiologie si àdduna bi yëpp. Mhm. d' accord alors bokk na tey ci li nga xamante ni moom la wax mu jëm ci wàllu infectiologie alors professeur bu fekkoon dañuy def genèse un peu def benn chronologie par rapport ak épidémie yi nga xamante ni jot na nag traversé fi nga xamante ni moo di Sénégal en quelque sorte en résumé la lañ ci mën a am. waaw xam nga épidémie choléra am na fi. Mhm. épidémie dengue am na fi. Mhm. épidémie maladie à virus Ebola am na fi. parce que mhm. benn cas da nga wax épidémie. donc épidémie yu bëri te avant yooyu amoon na ay épidémie rougeole épidémie poliomyélite. yooyu moom bëri na peut-être pour euh, mun a tënk wax bi rek. nañ jël épidémie maladie à coronavirus. maladie bi. benn jàngoro moo koy indi boo xam ne si famille coronavirus la bokk. waaye moo ñetteel boo xam ne daal lëjal na àdduna bi. parce que maanaam du lu bees. du lu. bees mais ah. bii ñu ngi ko door a découvrir. d'accord mu ngi door a indi lëj-lëj ak problème yu ñu xam. Mhm. parce que bi njëkk am bi njëkkoon sonal nit ñi mooy bi ñu doon wax SARS. ou SRAS. syndrome respiratoire aigu sévère. kooku coronavirus moo ko indiwoon. te mhm. Chine la juddoo woon. boobu c'est vers les années mhm. euh, ñi si doon faatu xawoon na gën a xawoon na bëri parce que 10 pour cent moom lu rëy la. Mhm. à peu ñoo doon faatu. après ñu dem ba boori 2012 beneen coronavirus ñëw. indi le syndrome respiratoire du Moyen-Orient. boobu aussi cas yu ëpp 80 pour cent des cas Arabie Saoudite sax la localisé woon. boobu nag daanaka. ñetti nit yu nekk kenn ki daf doon faat bakkan après nag bii ñëw le Covid 19 bi ngeen di dégg ni mooy feebar bi. Covid 19 mooy turi feebar bi nag. virus bi beneen beneen beneen tur la am mais coronavirus la. boobu pour l' instant liñ gisagum mooy li muy faat bakkanu nit ñi moo gën a néew. parce que dañuy entre 2 et 3 pour cent. Mhm. mais 2 3 pour cent boobu nag day varier selon situation yu bëri. soo jëlee malade yi nga xam ne dañu am problème respiratoire mënuñ nooy ba ñu leen di defal machine. Mhm. presque un malade sur deux dafay faatu soo leen fajee normalement soo leen fajul nag dañuy faatu ñoom ñëpp. d'accord donc xam nga kooku bokkul gravité. Mhm. ak ñi nga xam ne yeneen forme lañ am. donc mhm. selon forme clinique bi day joué selon âge bi aussi adduna bi gisaguñ kenn. ku am moins de quinze ans koo xam ne feebar bi jël na sa loolu tam c'est une explication. waaw waaw loolu 0 pour cent xamaguñ nag exactement tout les raisons mais 0 pour cent. ba 40 ans 0,2 pour cent donc gis nga ba 40 ans bëriwul noonu. Mhm. mais ku dem ba ay 80 par exemple day dem ba 14 pour cent. Mhm. comme yeneen feebar yoo xam ne bokk na si nga amoon ay tension ay diabète ay feebaru VIH ak yeneen maladie chronique mhm. kooku it dafay gën a gaaw a faat sa donc su ñu amee centage global bi pourcentage bi aussi il faut ñu xool. Euh, catégorie bu nekk lan mooy risque bi. loolu dina tax nga gën a xam yow malade soo ko amee. Mhm. Euh, sa vigilance fan la war a toll lan nga ko war a defal pour prévoir ay complications pour mun a jël complications yi nu mu waree. donc si gàttal si ñett yi ñëw yëpp mun nañu wax ne en terme de pourcentage. en terme de pourcentage laa wax. Mhm. moo gën a néew lu muy rey pourcentage mooy nombre de malades yi am feebar bi nombre de malades yi si faatu. Mhm. donc loolu war na tal. war na tax ñu bañ a paniquer. Mhm. bañ a a yóbbu feebar bi foo xam ne yeggu fa mooy li may wax di def ay dramatisation excessive. Mhm. loolu moom war nañ ko jàpp suñu bopp dal nag. Mhm. lu ñu war a def ñu di ko def. waaye nag suñ ne léegi ah nee nañ kat euh, du rey ñu bëri ñu ne léegi dañuy bàyyi suñu loxo. alors loolu musiba bu rëy mu ngi ñuy xaar. parce que xool Italie lu fa xew nga xam ne du jàmm. ku xew xool France lu fa xew nga xam ne du jàmm. réew yu am doole yooyu ñun suñu amee autant de cas xam nga dañu am problème ñu ko ëpp. yaa ngi dégg. donc Chine léegi contrôlé nañ feebar bi. Mhm. te loolu yi ñu war a gën a sawarloo si lu ñuy liggéey. Mhm. xoolal actuellement Chine soo jëlee daanaka ñuy faatu plus de di dix fois plus ñuy faatu feneen la ñuy faatu du Chine. waaw mhm. ah, il y quatre-vingts fois plus de nouveaux cas nouveaux cas la a qu'en Chine. est-ce que cela donc loolu ça veut dire que ñu doon euh, teg. mesures yi efficace na résultat yaa ngi te pour la première fois si àdduna ñu mën a gis épidémie bu demee ne ñu am yaakaar ne épidémie boobu mën nañ ko contrôler parce que épidémie yu demee ne en général contrôler ko presque def loolu mën a nekk mais am nañ si yaakaar parce que résultat yi ñu ngi ko gis donc il faut nit ñi ñu def lu ñu war a def et euh, a def état bi def lu mu war a def donc ne xel yi dal ñu xam ne feebar bi li muy nit ñi liñ si wër moo ëpp liñ si faatu kooku vraiment mais ñu xam ne suñ bàyyande ko musiba bu rëy dina am loolu moom amul amul sikki sàkk pour l'instant nag donc ñu ngi sant suñu borom mhm. mais li may bañ mooy nit ñi ba négliger si kaw di doye del feebar d'accord alors kon loolu war nañ ko war a mën a mën a bàyyi xel lu balee bari ñi ngi wax li nga xamante ni moo di centre bi nga xam ne moom la ñu def 4 cas yi ñu amoon benn bi wér na 3 yi stabilisé nañ leen ñu ngi ci controle bi bala ñu fi jógee professeur Seydi dinañu ci gën a leeral ci loolu pour ñu man ko jottali askan wi mais professeur tey en cas de catastrophe sanitaire bu amee ñi ngi wax ni 24 lii rek la ñu disposé muy centre bi te sànq yaa ngi junj ci sa wax ni tey bu fekkoon seetaan nañu ba jéey ji gën a law boobaa dina gën a ëppi loxo. ah dina gën a ëpp loxo euh, 24 centimes 12 moo disponible actuellement. moment bi may wax amul lii lits chambre climatisée lépp si biir confortable ak lépp. Mm. mais am nañ possibilité en moins d' une semaine ñu étendre ko au moins ba am même 36 lits. Mm. loolu possibilité la. Mm-hmm. d' ailleurs dinaa leen wax ne même tabax en dur. tabax en dur centre ou semi dur préfabriqué comme bu dur bi ñu mun a def la si semaine. actuellement donc pour étendre lii rapidement loolu lu mun a nekk la. Uh-huh. waaye nag euh, euh, pour l'instant amul tiitaange boo xam ne euh, jàpp nañ ne dinañ ñu dépassé nombre de lits yi ñu am ni mais uh-huh. nag il faut ñu def attention donc fi mu ne nii nekkuñ nag di xaar ñu ngi doon def benn defoon nañ installé nañ déjà ay tentes sous forme de bâche c'est déjà installé pour mën a accueillir à loolu moom pare na. Uh-huh. donc extension à 36 lits wëy. mais tenter c'est pas confortable comme ni ñu ko bëggee. Mhm. mais nag est-ce que conditions yi aussi voilà conditions yi voilà cest a dire mun nañ faj malade bi correctement sans problème ak lépp d'accord mais naaj bu tàng bi tout ça dafa nekk loo xam day doy waar. moo tax man dama laajte benn expert OMS mu ñëw yàlla dama ko laajte le lendemain mu yegsi. Mhm. ñu def réunion avec directeur hôpital. avec lu ñuy wax jéem ministère de la santé yeneen experts ONG et tout. Mhm. démb sax lañ pare waxtaan. waxtaan waxtaanee léegi ah nañ bàyyi fi tante yi noonu. mais il faut ñu fexe am dur bu confortable am climatiseur ak lépp comme exactement centre bële mhm. donc si opti boobu la nekk moo tax ma ne nañ jàpp ne on a 12 lits en cas de 14 du nañ demee 36 lits loolu dëgg la def nañ bâche yi ba pare mhm. mais du nekk du ñu gënal si situation bi waaw ñu ngi ñu ngi ñaan yàlla kañ affaire bi yem fi mhm. wala balaa moo yegg foofu ñu am beneen centre semi dur bi nga xam ne dina confortable parce que nit ko tëju moom kese parce que dañ leen en confinement lañu nekk. Mhm. soo nekkee si confinement nekkoo si condition yu baax. Mhm. psychologiquement daf lay déstabiliser. moo tax ñu ne en tant que médecin ñu insister bu baax. Mhm. pour ñu indil ñu lu demee noonu. d' accord def nañ démonstration sànq personnel de santé bi à risque pour éviter leen am na mais population yi tey si cause nga xamante ni moom la ñuy demee tey lan moom mooy li nga xamante ni moom moo war a gën a mën a apaiser dalal seen xel pour que ñoom ñu xam parce que jusqu' à présent nag am na ci ñenn ñoo xamante ni sax dañu jàpp ni. coronavirus amul. non xam nga loolu moom mënoo ko dindi si xelu ñëpp. Mhm. Sida depuis bu mu amee ba léegi am na ñu gëmul ne loolu feebar bi am na. ba léegi nii. Mhm. bi mooy wax ak yow. Mhm. mais nag dangay def le maximum pour le maximum de personne comprendre xam ñu ñu doxale man jàngalekat la. waaw donc xam naa ne mënoo ne teykat li may jàngalee cent pour cent dinañ ko xam cent pour cent yëpp am vingt sur vingt. donc loolu moom euh, dañuy def suñu kent laay kàttan si si sensibilisation. feebar bii lu am la. lu lëjal nit ñi si àdduna bi la te ñun lëjal médical bi la ñuy wax. waaw parce que loolu mooy suñu domaine. Mhm. mais demal si eh, ñi nga xam ne wàllu économie lañ nekk dinañ la wax ban lëjal la leen di indi. Mhm. ñi nga xam ne affaire yi tourisme da nga dem ñu wax la lan leen mais ay problème diplomatique sax si diggante réew mun na ko indi. Mhm. donc problème boo mun ta xalaat épidémie mi indi su amee mun na ko indi. problème boo mun ta xalaat mun na ko indi damay rappeler rek exemple amatuloon kuy faj maladie am sibiroog yooyu nit ñi di dee ndax yeneen feebar pas euh, ndax euh, ndax Ebola parce que amuñ ko leen faj. Mhm. te feebar aussi su amee laal personnel de santé ñoom ñu feebar tëdd kan mooy faj maladie. ah oui donc conséquence yi dafa rëy day ami sax su am na feebar nu ba day am conséquence sur la qualité de la prise en charge même des autres maladies. Mhm. donc les conséquences sont énormes sociales économiques lépp conséquences dafa bëri moo tax loolu wëy feebar bi am na li muy c'est pas la règle mais il faut ñu jël ko au sérieux ndaje yi nag man wax naa ko conseil présidentiel devant le président de la république mhm. risque bu rëy mooy ndaje yu bëri yi ñuy def ci grand rassemblement yi grand rassemblement yi mais xoolal am na pays yoo xam ne dañ am plus de mille personnes bu ñu am rassemblement ñenn ñi mille cinq cent ñenn yi cinq mille xëy na ñi ma gis ñu dëgër fit bu baax te yàlla daf leen jox mooy mooy américain man waroon naa dem benn conférence boo xam ne 4000 euh, participants mais dañ ko maintenir. Mhm. mais avec des moyens colossaux mais démb démb Boston am na benn fête bu ñuy doon def boo xam ne depuis plus de vingt ans xaw ma vingt cinq ans moo suñ ko raté. Mhm. ñoom dañoo décider ren duñ ko def à Boston. parce que risque ndax risque rassemblement. Mhm. pourtant ndaje bi ma lay wax bu 4000 personnes foofu lañ koy defee mais fête boobu ma lay wax depuis plus de vingt ans ou vingt cinq ans suñ ko raté ren ñoom dañoo décider duñ ko def. d'accord dañoo décidé duñ ko def. Mhm. conférence am na bu ñu waroon def fii Dakar organisé avec des français et dañ ko annulé. Mhm. yaa ngi dégg am na donc rassemblement yooyu kooku moom risque la parce que tey suñu defee rassemblement bu rëy ñiy jógee Iran ñiy jógee Italie ñiy jógee Chine ñiy jógee feneen dama joxe exemple ñëw daje foofu. Mhm. forcément nuy nit ñi di bëree lay ëpp chance indaale feebar propagation ça fa jógee nag kenn su amee comme nit ñi dañuy dajaloo ni ñu wàllu feebar bi day yomb ku fa jógee dem sa dëkk yobbaale jóge dem sa village yóbbaale et puis gis nga problème bu muy indi. Mhm. donc loolu nag il faut nit ñi bàyyi loolu xel le reste mooy dund normal bi rek. alors donc en ah, parlant de cela dañuy dellu ci société bi. Ah. société sénégalaise comportement attitude yi nga xamante ni moom la amee. Mhm. ñi ngi ñëw ci lu jëm ci yenn comportement yoo xamante ni boo xoolee lu ci bëri question d'hygiène dafay daal di posé wu. tey mhm. infection doon loo xamante ni dafa sew. tey professeur lan moom mooy loo xamante ni tey. sénégalais yi mën nañ ci jógee indi benn déclic boo xamante ni dinañu changer de comportement et d'attitude par rapport xam nga question bi nga posé dafa complexe xam nga man je suis médecin je suis enseignant je suis chercheur. Mhm. mais sur le plan anthropologie. Mmh. je ne suis pas un expert dedans. dëgg xam nga loolu ñoo la gën a mën a ñoo ñu gën a mën a dimbale si loolu. Mhm. gis nga Ebola au début mais dañoo jàpp ay médecins sax di leen rey si yenn kii naan ñoom fa indi feebar bi. Mhm. donc problème yu bëri doon am anthropologue yi ñoom ñoo koy gën a mun a évaluer xam naka la ñuy def pour euh, pour comportement yi changer mhm. mais médicalement man li ma wax mun a wax mooy loxo lu doy waar la mhm. loxo bu salte lu doy waar la léegi mu dama la dund normalement gis nga par exemple soo jëlee euh, coronavirus bi li ñuy conseil soo ko defee def lay dimbale si yeneen feebar soo dundee dundi normal rek li nga xam ne nit noonu la war a doxalee dina dimbalee si coronavirus mun na la dimbale waxuma cent pour cent mais mun na la dimbale bu baax dimbale si yeneen feebar. raxas sa loxo lan la ñuy wax balaa ngaa soo jógee toilette nga raxas sa loxo. ngaa lekk nga raxas sa loxo. sooy togg balaa ngaa togg nga raxas sa loxo. soo toggee ba pare nga raxas sa loxo. soo demee ba ñibbisi na nga raxas sa loxo donc su fekkee nit yaa ngi ël di raxas sa loxo. neen dimbale si lu bëri. Hmm. tey ko coronavirus su taqee si benn place nii su fekkee place bu woowu la mun na fa nekk trois heures de temps donc yow ñëwee soo ñëwee laal sa loxo nit bi. def na nga laal loxo bi. léegi soo demee raxasu woo nga jël sa loxo def ko sa kanam. Hmm. mun nga waale sa bopp mun nga waale sa bopp. Hmm. moo tax raxasu loxo bi mooy fondement bi njëkk. pour éviter feebar. deuxième mooy ku feebar moytu ko moom dafa war a moytu yow nga war a moytu ku sëqat tisoli nekkal à plus d'un mètre mhm. moom si boppam dafa war a ut soit masque chirurgical wala muy muy euh, protéger euh, suy tisoli wala muy sëqat gémmiñam mhm. lu tax bu ñu ko defee ak loxo parce que dañ naan mun na fàtte mu jël loxoom teg ko si kanamam mhm. su defee loolu moom su defee loolu dina la protéger yooyu soo soree dina la protéger donc par rapport ak ku feebar gis nga ñaari mesures yooyu ce sont des mesures individuelles simples mais dafa am importance bu rëy a rëy a waaw xam nga bu rëy a rëy. Mhm. loolu nag il faut que nit ñi ñëwaat ci habitude yu baax yi et puis di di di wéyee noonu. loolu c'est mhm. important. Donc, est-ce que du tamit professeur Ebola bi mu fi jaaree 2014 2015 dañu gisoon nañu gel antiseptique yi nga xamante ni ñu ngi ko doon jël foo tourné ñi ngi fa ba ci service yi noonu lañ doon def. ces temps-ci psychose bi tax na sénégalais yi aussi dem bañ naan rupture daf ci am ak loolu mais bu ñu jógee ci lii rek est-ce que tey toog tëdd nelaw war na parce que nee nañ premier cas bi nga xamante ni Sénégal am na ko. à travers vous votre service cas boobu wér na mais tey est-ce que du ñu delluwaat ci comportement yooyu ñu nekkoon. loolu nag la war a fexe bañ a dëppaat ci comportement yi. Mm. bañ a yooyu nag laa wax ni ñi gën a mën a def liggéey bi c'est pas les scientifiques. Mm-hmm. c'est pas les médecins. ça mm-hmm. c'est si li ma yaakaar c'est les sociologues. Mm-hmm. Euh, ce sont les anthropologues ce sont les spécialistes de la communication. loolu la parce que feebar bi bu ñu yaakaar ne euh, médecin rek moo koy xeex. cas yi su ñëwee di jël. faj leen def lu ñu war a def et cetera xëy na euh, suñu rôle particulier sur le fait que on est en contact direct avec les malades tous les jours ñoo leen war a traité ak loolu mmh. loolu moo def particularité bi mais aéroport dañ fay def c'est capital gis nga même épidémie am fu muy yegg day indi sa problème de sécurité nationale waaw ah, donc policier bi rôle am daf si am important gendarme bi rôle am daf si am important mmh. c'est pas parce que ñun ñu ngi ñuy gis rek mu mel ni ñun rek ñoo si am rôle déedéet ku nekk fànn bi nga nekk da si am rôle. ñun dañ mhm. nekk en contact du malade di faj malade bi c'est mais de l'autre côté il de a des décisions fortes. qui euh, euh, en premier lieu avec euh, la sécurité. voilà avant muy ñëw ci côté e-, médical bi exemple benn dama doon wax ak sama benn malade mu may wax benn genre de daje religieux bu war a am. Mhm. bon du ma wax dëkk bi nii rien du tout ma nekk ko waa est-ce que xalaat ngeen mbiru feebar bi. ñi war a jóge ñëpp di ñëw ci rencontre religieuse boobu après naka ngeen war a def pour problème bañ a am. Mhm. wala su ngeen mënoon jël précaution yi mat ñi jóge si zone yi am risque ñu bañ est-ce que xalaat ngeen si loolu xam nga lan la ma mu ne ma sëriñ bi si boppam moo woo taalibe bi nekk bitim réew ne képp ku nekk zone boo xam ne am na ay cas jéggal naa la bul ñëw. xam nga loolu comportement boobu. c'est à saluer ak prise de conscience. c'est à saluer xëy na xëy na comme vous êtes des journalistes xëy na di ngeen xam ni kan la <laughs> mais déjà loolu man su ma ko déggee ça me fait plaisir. Mhm. ma ne voilà duma faj euh, ay malaat ñu génn ñu indil ma yeneen ñu génn ñu indil ma yeneen fekk ñooñu mënoon nañ fexe ñu bañ a ñëw. Mhm. donc il faut que nit ñi jël seen responsabilité. Mhm. léegi nag euh, c'est vrai euh, ñun dafa am noo xam ne noonu la ñuy dundee noonu la ñuy doxalee. Euh, voilà maslaa bi moo ëpp wax dëgg bi wax lu leer euh, ku nekk yaa ngi ragal su ma waxee lii su ma defee lii ainsi de suite et mhm. finalement loolu aussi du du jur jàmm. d' accord donc voilà. d' accord alors bokk na ci professeur sànq yaa ngi koy wax maladie infectieuse mais zone tropicale bi nga xam ne moom lañu ñu nekkee est ce que mën nañu wax ni c' favorable au virus. xam nga loolu xamaguñ si dara. Mhm. am na virus yoo xam ne ay maladies virales yoo xam ne dafa am saisonnalité. waaw saison bii day gën a bëri que saison bi mhm. mais man maa ngi doog a commencé ma dogul un an. Mhm. ñu bëgg si wax ay saisonnalité non mënuñ ko si wax. Mhm. xamaguñ mun nañ xalaat mais ñun ay scientifique la ñuy ñun amuñ droit di wax si foog naa wala suñu wax foog naa it foog naa boobu dañ ko war a étayer wala fekk amuñ beneen pexe moo tax ñu wax foog naa xam nga li ñuy wax recherche scientifique soo koy def am na lu ñuy wax niveau de preuve. waaw bokk na si preuve yu gën a tuuti mooy ñu ne borom xam-xam wax na. man su ma ñëwee tey wax dara mun nañ ko def preuve ne ah diw wax na. Mhm. mais loolu mooy preuve preuve yu gën a tuuti la. preuve bu mag bi mooy nga def sa étude scientifique bu wane ne lii la amul werante. Mhm. waaw donc dara pour prouver wax jooju. Mhm. léegi kañ nañ bàyyi be loolu euh, moo moo am preuve ñu door si wax te su fekkee dañ si bëgg dañ ko bëgg a jëlee nag léegi ne jaratul euh, def benn précaution. loolu day indi problème. Mhm. loolu que am na ñu nekk ñëw fi réew mi jóge feneen indaale feebar mais feebar bi yeewu na fi. Mhm. ni mu fi yeewoo. menace la ci ñëpp. loolu mun na nekk. Cameroun seddul seddaay boobu. oui te cas bi bi fa nekk. transmission bi ce que j'ai lu dans la presse et au niveau même du site de l'organisation mondiale de la santé je ne sais pas jusqu'à quel niveau c'est vrai on parle de transmission communautaire. Mhm. loolu moom il faut ñu def attention. ñu def loolu day te encore euh, virus ak doomi jàng dañuy dañuy bettaate mm. Ebola kenn mosuloon xalaat ne dina am Afrique de l'Ouest mm-hmm. épidémie bi passé la doog a dugg Afrique de l'Ouest kenn mosul xalaat loolu ñëpp la nax si àdduna borom xam-xam yëpp la nax si àdduna kenn mm. mosu ko xalaat mm-hmm. mu ñëw dugg fi rey ravage yu kenn xam mm-hmm. deng yaa quelques années lépp dañuy wax asi ñu jékki-jékki deng commencé fi dugg si ak yeneen ak yeneen donc buñ nekk fii rek naan euh, climat bi et cetera si le climat n'est pas favorable mais tant mieux pour nous mm-hmm. mais on n'en sait pour l'instant et mm-hmm. quel que soit Alpha ça ne change pas les mesures de protection ñu war a léegi lañ war a agir na pas xaar bi am téeméeri cas léegi lañ war a agir mm-hmm. waaw gis nga Italie tëj ay école ñenn dëkk yi mosquée kenn juleetul vendredi les conséquences sont énormes dans des pays développés qui ont les moyens et tout. suñ caaxaanee bu feebar bi yegg benn niveau mais dina doy waar. su boobaa même duñ amati structure yu leen mun a accueillir. Mhm. am na nombre bu ñu am n'est pas question ñu bàyyi suñu yeneen maladies yi ñuy dee seen kër de. Mhm. maladies yi ñu doon faj dañu continuer di leen faj normalement. Mhm. gis nga dañu def centre bu bees pour faj leen. mais vidéo wuñ benn saal pour jël malade yooyu. parce que yeneen malade aussi dañu war a toppatoo. d'accord su boobaa sax soo moytuwul seen seen kër lañ leen di faji ak indi yeneen. sia ñaanuñ ko yàlla benn dëkk su amee ay milliers milliers de cas mënuñ def loolu am na dëkk yoo xam commencé nañ léegi di faj euh, cas yi seen kër mm-hmm. parce que mun mënatuñu jëw ñëpp à l'hôpital mm-hmm. parce que amuñ suffisamment d'ambulance même Royaume-Uni nombre de cas yi ni ñu bëree mënuñ amuñ suffisamment d'ambulance ñoom ñëpp di leen mobiliser pour di leen yóbbu a domicile la ñu bëri lañ leen di prélever. Mhm. yaa ngi gis loolu. est-ce que y a un universel boo xamante ni moom la ñuy administrer par rapport ak patient yi wala patient bu nekk ak protocole bi nga koy defal. si faj bi wala si prélevé ci faj bi faj bi protocole universel amul. ok bu nekk ak lu mu laaj. caractéristique yi bi présenté en fait faj euh, feebar bi li si particulier mhm. mooy ni nga war a solo pour éviter am feebar bi circuit bi nga war a jaar gestes yi nga war a def et tout est. vraiment protocolisé comme tey avion da ngay dégg même wax mooy wax même chose lay et cetera exactement la même chose du ma wax nag risque zéro am na parce que même avion amul risque zéro mm-hmm. il toujours un risque d'infection de personnel de santé mais soo appliqué yooyu le risque est extrêmement minime donc loolu yëpp moo compliqué bi malade bu nekk énergie bu bëree bëri la temps bu bëree bari la premier cas bi ay jours kenn nelawu fi mm-hmm. waaw ki nga xam ne ma profito di sant sama équipe bu baax je je je l'ai dit partout depuis très longtemps Ebola bi léegi ñu ngi ko wone mhm. euh, j'ai une équipe compétente dynamique dévouée engagée mhm. aw ma dara lu may sikki sàkk ci seen compétence bële c'était docteur Daayka moo nekkoon point focal mhm. euh, Ebola kii docteur Ndeye Aïssatou Laax moom moo nekk point focal mais liggéey bi dafa bëri ba nga xam ne euh, liggéey bi mu ngi koy def ak docteur Euh, Khadjata Mbaye Diallo. Mhm. ak ñeneen am na sama yeneen collègue yoo xam ne ma leen citer ñoom ñëpp. Mhm. professeur Louise Hotès Degano nga xam ne moom vraiment mooy sama adjoint véritablement et cetera ak ñeneen ak ñeneen. mënuma leen citer ñoom ñëpp mais je tiens à ce que ñu xam et j'insiste énormément là-dessus. Mhm. que je ne suis pas seul même si c'est évident ñi ñi xam ko. j'ai une équipe. derrière et c'est toute l'équipe vraiment sa qui se sacrifient mm -hmm. euh, pour faire le travail correctement et qu'on travaille aussi avec le service d'hygiène mhm. donc ñoo ñëpp dama bëgg ñu xalaatee ko noonu mhm. soo déggee ba ma la wax sécurité ak yooyu yëpp xam ne la travail c'est un travail de groupe c'est pas professeur Moussa Seydi mais c'est tout un système mm une organisation tout un groupe ki est, qui est là alors qui parle de service d'hygiène parle des soldats de la santé surtout mhm. santé publique dernière question bi nga xamante ni bëggoon nañ ko laal. Hmm. on assiste depuis un certain moment professeur à une transition épidémiologique parce que gisoon nañu tey maladies infectieuses yi xawoon di wàññeeku au-dessus des maladies chroniques yi nga xamante ni ñu ngi doon yéeg mais renouveau la ñu gis sur les maladies infectieuses. waaw xam nga. transition bi moom transition bi moom dina continuer am c'est-à-dire maladie infectieuse dina gën di wàññeeku maladie chronique yi di gën di bëri waaye nag dafa am yoo xam ne. moom daanaka mënul wàññeeku maladie épidémique da ngay régler benn rek beneen bu bees génnaat <laughs> xam nga Ebola la nekkoon dem na bii ñëw na gis nga bii. Mhm. incha allah léegi mu jeex mais beneen dina ñëwaat. mais dégg naa la nga ne am na yu gën a graaw yu ñu traité en silence te jógul ci kaw. waaw bien sûr fièvre hémorragique Crimée Congo. fièvre de la vallée du Rift ah loolu ministère xam nañ ko ainsi parce que ñëpp mais waxuñ si ministère waxuñ si parce que amul intérêt ñu wax ko population ok waaye lii population xam nga dafa am solo pour ñu mun a fagaru. Mhm. donc suñ traité yooyu du du moo ñu jaaxal. Mhm. te malade bi mu présenté ni mu ñëwee noonu nga koy faje soo amee malade bu am diabète am hypertension am yeneen feebar yooyu da ngay toppatoo faj yooyu léegi nag selon li mu yëg ngay xool en fonction de ça nga xam ban feebar ban traitement la soxla nga def ko tam c'est vraiment les rigueurs de la médecine de tous les jours moom ngay appliqué foofu. Mhm. moo en charge mooy changé mais traitement tant que tel. ça ne change pas. Même les médicaments contre le virus, mais on ne l'a pas pour l'instant, mais traitement symptomatique, c'est primer ça sur le traitement contre le virus. Parce que loolu soo ko joxee on malade, on noyer. soo règle le problème malade bi day dee. oui c'est clair. Mm-hmm. donc tétanos par exemple li sauver malade bi antibiotique bi ngay jox pour rey microbe bi de. Mm-hmm. contracture yooyu mooy am moom traitement boobu moo ëpp importance soo ko defee malade bi xam ne. traitement microbe bi moo jiitu. am yoo xam ne traitement symptomatique moo jiitu. loolu nag ñun médecins ñoo ko mun a xam c'est le vaccin c'est une urgence dans la prévention. parce que vaccin du traité. am na vaccin yuy traité mais mhm. bii du pour traité. Mhm. donc c'est une urgence parce que loolu moo ñu mënoon dimbali ñu arrêter épidémie. xam nga vaccin Ebola bi. Mhm. Euh, dañ koy utiliser dans les épidémies. te chaque fois qu'on l'a utilisé il y a eu des résultats extraordinairement positifs. loolu nag war nañ ko yàkkamti. antiviraux yi baax na soo ko amee nga boole ko si faj bi sa malade day gën a évoluer bu baax. Mhm. et puis transmissibilité bi aussi wàññeeku. et cetera loolu c'est important donc pour ñu xam ne garab yooyu ñu ngi leen di xaar. Mhm. mais bu ñu yaakaar ne garab yooyu su ñëwee dina tax traitement symptomatique important sa mu wàññeeku non c'est extrêmement important le traitement soo waree def dara defuloo ko. Mhm. la malade peut perdre sa vie soo joxee les antiviraux antiviraux yi aussi pour di wax ne sur li ñuy wax science pure amagul dara lu prouvé ne c'est efficace. Mm-hmm. am na molécule yu ñuy testé mais il faut ñu dem ba yegg ñu doog a xam si efficace ou pas mais nag am na lu ñu science may de remdesivir boobu ma laaj américain yi may ma soo amee malade boo xam ne c'est très grave xam nga ne kii risque vital bi c'est énorme soo daanaka soo ko fajul mën na faatu. Mm-hmm. mun nga ko jox pour essayer. d'accord dans ce cas si ça marche mais tant mieux donc euh, moom la euh, traitement compassionnel. xaw ma mm-hmm. naka laa koy si si wolof tellement mhm. compassion loolu dañ koy xam. Mhm. waaw ñu ngi def test bi am na ku ko essayé fii gis nañ ne yaakaar nañ ne baax na et mais malaat bi yaa ngi ci nar a ñàkk yaakaar. Mhm. te garab gi xam nañ ne mënu ko lor lu ëpp feebar bi. Mhm. tu sais pourvoir. mais nag il faut ñu xaar encore balaa ñuy wax waxi laaj. Mhm. waxi chloroquine <laughs> waxi remdesivir waxi ñenn yi sax ñu ngi yaakaar ne mélanine day tere nit am feebar. <laughs> waaw demee wu daanaka mooy loolu. alors une toute petite information euh, VIH euh, Sida. ñu ngi wax à la dernière information que ni greffe donc ça a permis ñu ngi ci deuxième malade boo xamante ni c'est guéri totalement. non xam nga yooyu it information la yoo xam ne euh, pour soo nekkul dans doom pour nga comprendre ko day xaw a jafe en fait mm-hmm. Mm-hmm. boobu ñun xam nañ affaire am depuis très longtemps du lu bees mm-hmm. mais loolu ku si basé wu pour yaakaar ay traité VIH mais da ngay nax sa bopp <laughs> parce que malaad boobu particulier premier amoon na malade bu njëkk euh, de Berlin kooku dañ ko defal ñaari greffe moelle osseuse defal nañ ko avant greffe bi sax lu ñuy wax radiothérapie mm-hmm. xam nga loolu day immunité bi day baissé dafa amoon benn genre cancer du sang leucémie alors bi ñu ko ko defalee depuis boobu amaatu benn problème parce que li ñu ko greffé euh, kooku dafa am benn anomalie génétique boo xam ne VIH mënu ko dal loolu mooy chance am loolu ñu ko greffé loolu moo ko sauvé greffe moelle osseuse boobu ñu ko def parce que dafa am benn anomalie génétique boo xam ne on estime à 10 pour cent des euh, caucasiens ñoo xam ne am nañ anomalie boobu Afrique moom les noirs xam naa c'est très peu en tout cas gisuma si benn étude bu wane ne am na sañu ko si am su si hmm. amee xam naa war na tuuti mais loolu moo tax kooku moom mu sauvé kii hmm. aussi moom defal defaluñ ko radiothérapie greffe moelle osseuse benn lañ ko defal hmm. mais mu ngi compte donc son protocole de traitement est beaucoup moins lourd moo tax mu impressionnant mais li li ko dal ni amoon na déjà mhm. le patient londonien la li ñu gis moom amoon na déjà mais moom traitement dafa gën a moins lourd mais mhm. toujours c'est le même principe mais loolu soo ko bëggee indi à l'échelle il faut nga wër ñëpp ñu am anomalie boobu foo leen di gisee d'abord c'est vrai ah <laughs> xam nga loolu bu ci basé woon nag di wax aussi ne léegi VIH amatul problème ah. dañ koy faj léegi mu wér ah. naa defati lu ma neex def loola neex am lu la neexul voilà <laughs> jaajëf professeur jërëjëf merci merci professeur Moussa Seydi nekk chef service maladie infectieuse fii tamit donc ñu ngi fii ci maladie tropicale yi alors tey ñëwoon nañu def taxaw seetlu bu nga xamante ni jëm na ci wàllu coronavirus permettre nañu aussi de façon ramassée ñu waxaale ci lu jëm ci wàllu épidémie yi mais tamit information bi jëmoon ci VIH ñu am ci luñ ci leeral mbokk yi ci beneen jamono ñëw ak yéen ci beneen numéro urgence ñu ngi leen sant di leen gërëm jaa ngeen